ziar nañ leen yéen ñi ñuy suivre ci 4appuis TV di leen jaajëfal bu baax ci seetaan bi nga ñu seetaan partout dans le monde France États-Unis Espagne Maroc Gambie Argentine fépp lekk fu Sénégal nekk di suivre 4appuis baax di la ziar comme xam ko bu baax si làmb yàgg def ay ay jaloore si làmb tey nag ñëwoon fii seet ko fas yéene waxtaan ak moom ci absence am bi mu absence am bi nga xamante ne gëj ko gis mu ñëw wàcc si géej bu bëri lan moo ko waral mu ci mi wax ci parce que parce que fan yi la passé seet si woon nañ ko mu yëkkati woon ay kàddu ay kàddu jëmale ko ci guy ci ay problème yu doxoon seen diggante loolu ci mu indiwaat ci ay leeral wax bu baax julli ci yonent bi sant suñu wéyjur di santaat suñu wéyjur di sant suñu sëriñ Cheikh Modou Gueye di santaat suñu sëriñ Cheikh Modou Gueye di jaajëfal waa axlul làmb yëpp di jaajëfal waa géejawaay gi ma juddoo di jaajëfal waa place bi kom ñoom Cegi ak Bibi ak ñoom moor ñoom Moustapha ñi fi nekk ñëpp Gora Fall ak ñoom gara ak ñoom Congaan ñoom Aada ñëpp di leen chair di leen jox seen wàccaay bu baax a baax a baax waaw. mais foo ci entraînement yi instant bi. waaw entraînement instant bi comme ci koor gi la commencé nañ démb. waaw commencé nañ démb xam nga rek entraînement koor yàgg nañ kaa di def. du duñ ne guleet la. waaw commencé nañ ko daal waaw. ñaata séance ngay def kon instant bi benn benn wala ñaar. non instant bi paate ak ambulance ak ñoom Père Mao benn séance la ñuy def boo defee deux séances instant bi bàq yi dañuy am ci yow soxla de waaw ngay métti kay. combat yi mais Baye balaa combat yi ñaata ñaata combat nga bëri. man bëri naa seize defe naa seize. seize combat. Mm. ñaata victoire. quatre défaites la am. quatre défaites. parce que deuxième victoire la. loolu carrière boobu macha allah. Mm. les combats yi fan la toll instant bi sa promoteur ñu lay contacter. waaw man maa ngi woon ci combat parce que corona bi la ak damaa nekkoon ci ay xaw jafe-jafe moo tax combat bi mu ko mais instant bi ñu ngi ma naan ay lan la 4 juin xam nga le 3 juin loolu la ma jiyee waxagum ak Pathé. Ah, jéem a tëgg sa combat. jéem moo tëgg sama combat muy promoteur bu baax. Mm-hmm. ñu dëkk fii Géejawaay muy ku jàppale waa Géejawaay daal waaw. yow kan la boole. maa Jara la. Mm-hmm. Mm. ak waaw. Mm-hmm. yaa ngi waaj combat bu baax. maa ngi koy waaj boo xoolee combat bi mu am yëpp boo daa mel ne bi moom moo gën a soxal pour l'instant waaw parce que li ma toog bëreewu ma. Mhm. instant bi coow li bëriwaat mu nekk ci tele yeeg kërëb kërëb di ndalu bu ma ñëwaatee rek moo xam ne ñëw naa barke ma Serap Fall. mais sax ma ne instant bi amatul droit def erreur ci ci làmb. li ma topp rek amatuma droit def erreur parce que boo xoolee suñu école bari nay samp yoo xamante ne. ñu ngi def ay jaloore dañoo topp sama ginnaaw ma nekk ci ginnaaw guy gi ñoom Eumeu seen ñoom Fifty seen ak ñoom Malal kon amatuma def droit erreur dañ maa teg soog barke Serigne Touba. Mhm. combat bi noonu <laughs> day raw bu ma ñëwee lu mu laaj dinaa ko si def barke Cheikh moo Gueye lu mu laaj dama ko si def waaw. ni jara day xaar lu bari doole lay xaar. Ah. war na yàlla. ok comme ni ma ko waxee léegi si début bi am na ay jamono seese woon naa la fii nga yëkkati woon ay kàddu jëmale ko ci guy mu mu nekkoon ci ay problème yi doxoon seen diggante loolu fan la toll instant bii. waaw loolu lañ ciy sant yàlla bu baax parce que dañ ne doomu aadama boo nekk ci jafe-jafe ah, am ñu ñëw ñu la taxawu loolu mënoo def lu dul dellu ginnaaw santaat leen waaw nekk naa ci jafe-jafe mu ñëw taxawuma ak waa géej waa gi yëpp ak sama sëriñ Cheikh Modou Guèye ak ñeneen ak ñeneen sama famille samay mag. samay xarit samay am di jàmm ñëpp ñëw waaw maa ngi ko si nuyu bu baax moom guy gi ak soxnaam ak ñoom Fifty Cent ñoom Prési et cetera ñëpp maa ngi leen di bëggee waaw ñëpp daal ñëpp am problème waaw damay ñaan yàlla mu yëm fi rek waaw. mais ban problème la woon. loolu moom jàmm la rek. Hmm. waaw. mais sa relation guy instant bi nan la demee. ñu yàlla rek yaa ngi gis léeg-léeg woo naa pour mu ñëw boo wax bi mu ma daa am fu mu demoon mënul jóg. instant bi moo tax man ne ko tëddal nelaw émission bi yaa ma gën a xam waaw. sama waay la mais problème mënta ñàkk même bu dul guy gi sax damay am ak ñeneen problème mais problème bi du génn mais dafa nekkoon loo xam ne dafa nekk sama xol mu war kaa génne bañ kaa ŋuñ-ŋune ci garam place yi. kenn jubóolu wuñ maa moom ñoo toog ak suñu borom ñu waxtaan ci mu jeex. waaw di si ñaanal suñu papa ji fa Fadam yàlla na ko yaara xaaral aljanna bu baax waaw yàlla na ko yaara xaaral aljanna barke Serigne Touba. Euh, léegi combat seen combat bi passé Guédiawaye doon na bëri benn combat euh, arène arène nationale mu nekkoon Lac de Guiers ak Eumeu Sène noonu gisee combat waaw seetaan nañ ko te topp nañ mbër yi parce que ñoom mën naa ne Eumeu dañ kaa bett la de Guiers kaa bett am Lac de Guiers lu ñu ko bett bett mu ngi woon ci entraînement yi Eumeu Sène lañ bett ak doole man li ma gis parce que boo xoolee Lac de mu ngi def lu mu mën Eumeu Sène jege saako yi bëri nañ ko noonu lañu ko war a mën a bëree. comme noonu la ko yàlla bëggee. waaw dañuy ñëw ci bëri bi hmm. est-ce da ko da nga ko jàppale si côté entraînement yi contact yi. non non man moom lu ma lay wax rek. Hmm. nee naa la du ma war ba pare di wax loo xam ne amul. la dëgg musul ñëw sama combat musuma ñëw combat am bu nekkee dëgg la yàlla bëgg musuma xaa dem jàppale musuma dem jàppale combat mu Modou Lo ñëwoon naa fa guy gi moom fa yóbbu sax booy xool ñëw naa gis ko ñaanal ko waaw combat boobu defe naa dañoo niil xaw ma ñu ñëw ci jàmm ba léegi rek. yaa ma gën a xam. léegi combat bi noo ko gisee fi mu jeexee est-ce xaar yéen. combat bi xaaruñu fu kenn parce que man mii sax damay bëre xaaruñu ma fa. waaw gis nañ waa Géejawaay yëpp dar ko yàlla dogalee ko noonu kon dañ koy sant yàlla moom neen daa blessé ba muy ñëw kon yàlla wér ak jàmm mu jox ko combat mu am si ndam waaw. bi ci méngóo est-ce que gis nga boo xoolee euh, euh, Lac de Guiers pare na mais seen Sène moom moo parewul normal waaw. Eumeu Sène parewul parewul parce que physiquement boo xool Eumeu Sène nga xam ne Eumeu Sène bi doon ñëw ak bii bokkul waaw mais ñun daal lu ñu doon wax dañ doon ñaanal Lac de Guiers mu am ndam rek loolu lañ gis mhm. te da leen a bett da leen a bett da leen a bett de mais buñ parewoon normal du demee nii mhm. oui mhm. beneen combat bi nag Balla Balla Gaye Bombardier waaw Balla Gaye Bombardier amoon nañ ci premièrement benn déception mais pour l'instant nii nii nii moom ñaanuñu yàlla amaat beneen déception bu mel ne bi amoon boobu Balla Gaye parewul topp pizza yeeg hamburger yi di lekk rek toog ci këram gi boobu ak bi bokkul instant bi ñu ngi koy gis mu ngi liggéey. parewul parewul ñun xam nañ Balla Gaye bu pare bu parewul parce que ñun fii lañ juddoo fii lañ yaroo dañ koy ñaanal yàlla muy am ndam moo ñi fi ne bu amee ndam ñun dañuy gën a mën a ñëw waaw. dañ ñaan yàlla yàlla may ko ndam ci combat bi moom Bombardier waaw. la ñëw ci combat bi. liggéey. liggéey bu baax. bu liggéey rek am ndam. Mhm. waaw te mu ngi ci mu ngi ci tànk yi. Mhm. waaw am na ñu ne digaluñ ko mu xeex ak Bombardier yow nga ci lool. lamb bu xeex la ñu wax ak bëre. bu xeexee bu xamee xeex moo arrangé mu xeex bu xamee bëre moo ko mu bëre. waaw sama ko arrangé ci combat mu jàpp daan. bañ xeex bañ xeex. waaw lu tax ko muy waaw parce que Bombardier ku encaissé kuwam rek pour pour pour man boo xamee yaa ngi barsaax de parce que Bombardier dóoram baaxul. Hmm. baaxul de gis nga giri bu mu ko encaissé moo teeyul moo tax foofu la mujjee. Hmm. yaa ma gën a xam. bu muy xeex Bombardier daal ngay conseillé bu mu xeex na jàpp daan. Hmm. waaw na jàpp rek daan. jàpp waaw.